ñi xam ne julli farata biñ ko wàccee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam par ñaari rakka rek la woon julli yépp ñaari rakka la woon genn julli moo doon ñetti rakka muy timis genn julli képp lañ farataal muy ñetti rakka waaye yi ci des yépp ñaar ñaar la woon ñu dem ba jëmmi jamono ñu ne ah ñaar yi nañ ko bàyyil kuy tukki bu dee ki nekk këram mu julli ñeenti rakka mu daal koy soppi moo tax fa uqirrat salaatu safar noonu la ko Aïcha radiallahu taala anha nettalee ñu bàyyi julli tukki mu mel na meloon ki nekk musaafir ak julleem day wéy ca farata ju jëkk ja loolu moo tax kàddug wàññi julli dañ koy wax waaye du noonu maanaam wàññiwuñ ko moom kay noonu la meloon julli gi ci kër gi nga xam ne tukki woo googu lañ yokk ga ca des ñu bàyyi ko na meloon foofu nag la lenn ci borom xam-xam yi sukkandiku ba ne musaafir moom sëñ te matal sëñ te matal ndax noonu lañ ko farataale noonu ñu ko farataale sañoo koo sopp yow di ci dolli ndax fa zidat fi salaati alxadar la wax dañoo dolli ci julli ki tukki wut ka tukki nag ñu bàyyi ak julleem nam meloon tomb boobu ci ñu war a mën a waxaale ci la bokk. Euh, bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa radiyallahu taala an saadati sufiyati atibai alqulub usaati alafida mbokk ji li ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara euh, di dellu siwaat ak yéen ci euh, taxawaay bu gàtt rek ak daggitu vidéo bi Euh, nga xam ne waxi Mouhamed Lo alwahabi la muy wax ci cosaanal julli ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, wàññi wàññi julli wahabi nag niñ leen xame mooy wax maanaam duñ ci wax dëgg la ñuy wax te tuddee ko dëgg mooy li ñu gëm rek wala li ñu gis wala li ñu jàng wala nangam maanaam am masala su fekkee dafa wax yu bari yu ci am te moom mu am benn wax bu mu gëm yow mënoo yëg ci waxu wahaabi ne masala bi am na ku ci wax leneen boo ko dégloo da nga jàpp ne benn wax rek moo tax wax waxu wahaabi musiba la kooku déglu ko cànkute fa lay tàmbalee fa lay jeexee itam ndax bu fekkoon boroom xam-xam yi wuute ñépp wuute wax ci ay wax yu bari bu ñëwee danaan la du la xamal sax ne ak wuute am na ci moom dafay ñëw ne la nangam nangam la pare ci léegi nag li tax ma koy leeral dama gis Mbàkke Saaxo comme moom day jëfandu rek mu dugal ko ci euh, sitam ci compte YouTube ngir di wone ne wax bi Mouhamed Lo Al wax ak waxam ji benn la te lool sax maanaam ak réer la rek Mbàkke moom moom yàlla daa nattu jàngul daal maanaam boo jàngul nag lépp ay lay lay doon ci yow maanaam loo for rek ñu jàpp ne mën na laa dimbali daal tax ay waxam dama ci xaw a loolu moo waral moo waral nag ñu war koo leeral ànd ak Mouhamed Lo al Wahabi du wax dëgg ci masala moo tax warul fatwa kenn eh, lii mu wax nag konéri mënu koo weesu ni doo tëb rek jël ak genn wax rek daat koy sànni mel ne lool rek moo am ci téere yi waaye li baax ci kuy woote woo boroom xam-xam mooy booy wax ci dara dara jooju danga nga koy peeg da ngay wax ne lii la boroom xam-xam yi wax waaye masalam cosaanal julli ñeenti rakkaa la woon wala ñaari rakkaa woon est-ce que wax yépp dafa rek dafa dafa dafa wàcc ci li Muhammad Lo Al Wahabi wax rek kese kese kese loolu moo am ci diine ji est-ce que sax loolu mooy li wér ci diina ji est-ce loolu mooy wax ji boroom xam-xam yi wax walla wax jooju dañ ko teggi ñoom loolu lépp nag képp kuy déglu Muhammad Lo al doo ci génn yow doo ci génn mukk parce que doo xam li xew lana doo xam li xew lana ndax moom Mouhamed Lo maanaam waxam bépp mooy cosaanal julli ñaari rakka rek la woon est-ce que loolu mooy li boroom xam-xam yépp lii rek lañ mës a wax mosuñu wax leneen ak ban moo ci wér cosaan li ñeent la woon wala cosaan li ñaar la woon ban moo ci gën a wér bu fekkee bu nit amee xadiisu Aïcha rek léegi cosaan gi day nekk ñaar léegi yeneen xadis yi nga xam ne moom waxul loolu nag léegi nuñ leen di def ñoom te ñu wér ñuy xadis yëpp wér nuñ koy def ibnu abbas radiallahu anhu wax ne yàlla farataal na julli ci làmmiñu seen yonent bi mu nekk ñeenti rakka ci lu dul tukki loolu nuñ koy def nees koy déggee est-ce que dañ ciy déggee ne dañoo yokk ñaar la woon ñu yokk ko def ko ñeent walla noon la ko yàlla farataale te lool ci saxiix muslim la nekk farada allahu salaata ala lisaani nabiyikum fi lxadari arbaan loolu lu muy teg laa bëgg a xamoon yàlla farataal na julli ci làmmiñu yonent bi salaay salaam ci lu dul tukki ñeenti rakkaat noonu lañ ko farataale noonu lañ ko farataale maanaam xadis boobu nuñ koy tekkee wala nit bu amee benn xadis rek wax ji jeex na léegi dañuy lëmës lépp daal di toog beneen bi su fekkee ne maanaam julli ñaari rakkaa rek la woon ñaari rakka rek la woon kon lan moo tax lan moo tax ñu tudd baatu wàññi julli moom nee na wàññi julli amul ñeme yàlla foofu la ma ne yow miy wax ne wàññi julli amul boo bindee téere wàññi julli ngay wax moom bi mu bindee fataawaam bi indi na ci juróomi laaj yoo xam ne yépp ci waa ci wàllu wàññi julli rek lay wax wàññi julli mu ñëwaat ne wàññi julli amul gaa yi koy wax noonu rek ndax kenn wàññiwu ko te moom boo xoolee ci fatawa bi question laaj fatwa numéro cent quarante neuf wàllu wàññi julli lay wax fatwa numéro quatre cent quatre vingt dix wàññi julli lay wax fatwa numéro sept cent wàññi julli lay wax fatwa numéro neuf cent treize wàññi julli lay wax fatwa numéro quatre neuf cent quatre vingt sept waatu wàññi julli lay wax moom nee na wàññi julli amul loolu nga mën a wax parce que comme nee nga yow maanaam xadiisu Aïcha rek moo am ci àdduna leneen amut lu wuuteeg moom boroom xam-xam yi itam mus ñuy wax lu wuuteeg moom lu wuuteeg loolu te muy xadis boo xam ne abu xanifata ak ngërëm wala abu xanifata képp sax moo koy jëfandikoo ngir wone ne julli ci tukki moom ñaari rakka mooy farata ji ndax loolu moo loolu moo noonu la ko yàlla farataale maanaam wëreesu la def leneen yeneen boroom xam-xam yi nag ñëw wax safaanu loolu boroom xam-xam yépp wax leneen Ahmed Lo ñëw di fonto nit ñi bëgg gëmloo ñépp ne lii mu wax rek moo ma sa am ba tax àgg ci lam daan wax ak bind ko daan ne loolu amut maanaam wàññi julli amut li am mooy julli gi ni mu demee woon nii nii lañ ko farataale nii la ko yàlla farataale julli yëpp la woon ñu yokk ci ñaar ñu yokk ci ñeent ñu yokk ci yeneen ñaar muy ñeent te yow foo bindee wax ne wañi julli nangam ak nangam wañi julli nangam ak nangam su fekke ne wañi julli amut nan ngay def waxu yàlla je subhanahu wa taala wa laysa alaykum wa alaykum junahun an taqsuru min as-salati fa idha dara wa ida darabtum fi ardi fa laysa alaykum junaaxun an taqsuru min alsalaati maanaam baat boobu lu muy firi daal an taqsuru min alsalaati lan lay firi mooy ngeen julli ko normal ni mu demee woon wala ngeen wàññi ko kon ahmed loo war na ñëw firil wa ida darabtum fi l ardi fa laysa alaykum junaaxun an taqsuru min alsalaati an taqsuru min alsalaati lan lay firi moom comme nee na wàññi julli amut moom war naa firi laay joj firi loo ma ko mbàkke saaxo rek ndax mbàkke boobu xam naa de moom dafa xorom waaw jàngoo bëgg a tari xam nga daa mënta nekk moom baatub taq suuru ci boppam xamu ko nee na mooy gaawal maanaam nga bañ a kii yeexamtal dal nga gaawal julli gi gaawal na lay taaddi ci min maanaam baatub taaddi sax xam naa ne dafay diis ci moom maanaam min ci boppam lu muy wut ci taq suru min maam mu nekk ak gaawal Mbàkke moom ay waxam moom waxuma te boobu kenn wax moom moom moom <laughs> maanaam am théâtre la ku jàngul wëreesu la wax moom waaye Ahmed Lo mi jàng ne moom cosaanal julli ñaari rakka la woon loolu mën ngaa wax ne am na ay borom xam yu sukkandiku ci ne ci loolu ba ne nangam ak nangam sukkandiku ci xadiis Aïcha am ñeneen ñu wax leneen te ñoo ñooy jumhurul ulama loolu moo tax baatu wàññi am fi lan moo tax ñu jékki-jékki rek naan wàññi julli mooy boroom xam-xam yi dañuy wax ne julli ñeenti rakkaa léegi nag kon tukki la cay am ak wàññi lay tudd bu fekkoon ne li nga wax moom la ñépp dëppoo baatu wàññi du am place ci diine ji kenn du wax wàññi su boobaa te wàññi gi kët ñun waxuñu ko de yàllaa ko wax an taqsuru min as-salaati bu fekkee li yàlla wax nag yàlla day wax noonu rek waaye affaire amul kooku amee loolu moo am te wahabi yi at nañ cee attan nañ ko dimbali ci loolu moom dimbalante ci taawun ala ismi wal udwaan moom ñoo ci man dégg nga kon Mbàkke Saaxo moom loolu dana ko arrangé parce que moom comme mënul firi an taqsuru min as-salaati moom mën naa ànd ak ku wax ne wàññi julli amut tax ndax Mbàkke dafa wax ne wàññi amut wàññi amul julli yi ñaari rakkaa la julli yi ñaari rakkaa la kon nag damaa xamul alquran ji nuñ koy def ñoom quraan yoon ji waaye itam yow mi nga xam ne ab wahabi nga te léeg-léeg ngay layoo ay xadis nooy def waxu yonent bi salaay waxu ibnu abbas bi mu wax ne yàlla farataal na julli fil xabari arbaan maanaam mu nekk ñeent noonu lañ ko farataalee kenn yokkul de maam noonu lañ ko farataalee mbàkke saaxo nag comme moom day tëni xawma day day day maanaam sànniw carte jàpp bee boo la neexee nga sukkandiku fee moom xadis léegi yow xadis bu la arrangé rek nga daal ne léegi déggal foofoo wax nañ fa nangam léegi yeneen xadis yi noo koy def ñoom da ngay jàpp yëppal nga bàyyi yëpp yaa xi moom alxuraan moom comme benn rakka amu fa ñaare rakka amu fa maanaam masaan yi amu fa ay ñaar ñaar amu fa dara amu fa dara lu waay bëgg a ci rakka ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam la koy jaare moo tax loo wiiri wiiri da nga wengalu daa di jafandu fee waaw benn nga jafandu ci Ahmed Lo mu firil la ko prix mu jaarul yoo wala nga jëfandiku sa xam-xam bopp wala sam xel keese mais leneen amu fi alxuraan moom amul ab bunt buñ koy jaaree pour daat fay saxal ñaari ràkka moo tax maanaam fu ne feneen fu nekk danga nga fa mën a wër wante Ahmed loo moom day wax wax yoo xam ne daara du ci xam-xam jël wax sànni nga xam ne jeneen wax amut man loolu moo ci gën a soof te kat moom ci téeréem bi toujours day wax ne su fekkee ne wàññi amul kay affaire bi dañ koo def na nam kii lan moo tax moom muy utiliser naan xasru salaateeg muddatu xasri salaateeg warta xasroog daa war a baatu xasru moom lu muy firi laa bëgg xam man su ma doon mbàkke saaxo nag <laughs> dama naan léegi bàyyi naa alxuraan damay ñëw ci ci sunna li ngeen gëm falaay sukk falaay ñëw loola laa gëm léegi damay sukkandiku ci xadiisu Aïcha bi nga xam gëm naa ne wér na dégg nga sukkandiku ci ne affaire bi ñaari raaka la léegi comme yokk gi kenn xamu ko kon kenn waru koo topp kenn xamul kan lañ nisbaal yokk geeg yu mel noonu mu sukkandiku foofu comme alxuraan amul ràkka comme amul ñaari te wax nañ ne ràkkaa yi moom ci yonent bi sallallahu lañ ko jànge lañ koy jànge kenn jàngewu ko ci alxuraan alxuraan léegi nag fi dangaa war a wàcc jóge ci alxuraan daal di ñëw daal ñëw leen ci sunna si nga daal di téye xadiisu Aïcha daat koy mboq nag daal ne lii nag si mooy sama lay fii laa sukkandiku waaye démarche bi day mel ne yow ci xadis kese kese ngay sukkandiku ne xadis baa ngi nii bi ngi nii lii mooy li mel ne ku gëm xadis su fekkoon ne fa nga jëm daa am ay rakka nga ñu ne lii sax xëy na danga koy dëgërloo rek waaye yow fa nga jàpp te téye ko te naan mooy mbir mi loola raka amu fa léegi fi raka yi am ñaar yeeg ñett yi ñëw fa nga jàpp ca ñaar ya léegi daati xuloog waa ñeent ak waa ñett ak nee nangam ak nangam te bala ma dee ma dégg ay dof yu taxaw naat quran yu ni nee nañ julli ñaar kenn mus ta wax loolu amul benn quran yi ci àdduna bu ma sa wax julli ñaari raka rek la war a doon maam julli yépp ñaar raka ñaar raka loolu cheikh mbake ko cheikh mbake du quran yi du sunni du shii du dara benn waay bu jàngul la wa xalaas kooku waxam amul benn poids ci wàllu xam-xam dara moom du quraan yi du sunni du shii du du du bokkul ci benn kuréel te du kuréel moom ah benn waaye bu jàngul la ku sànku ku topp sànku rek lool rek laa ci xam man xaw ma ci leneen xaw ma ci leneen su amoon tuuti kii nag su ñawoon tuuti day bàyyi alxuraan ji daan ne léegi man sunna soosu laay ñëw weranteeg yéen gëm sunna si jàpp ci xadisu Aïcha te gëm ne wér na daat ci ànd ak yéen nag dal seen kaw loolu moo doon débat bi waaw mënoo wax ne naa ci alxuraan rek laay sukkandiku léegi foo jógee daat ne wasidat fi salaati xadare kan moo yokk ku yokk ku wàññi mel na yow da ngaa gëmub xadis yow loolu dafa garaaw Ahmed Lo moom moom wax loolu waxi waxi ku daan ci sareet la maanaam loo xam ne yow booy bind loolu ngay bind booy wax loolu ngay wax nga xëy suba daal loolu amul kooku woye di rek koy def xam naa daal yéen ñaar mën xaw ngeen a mën a ànd de kii daa jàng te yeewul kii jàngul yeewul